taga ñëpp ki may taga raw ñëpp yéen ñi soppee gëm eh. magir seen géer moom duma su jaam ñi géeru géer ñange gëm leen dina baaxe ki may tagga gën ñoom lay lay la laa gëm leen dina baaxe lay lay la laa sama géer Simge, mo moom du maasu jaar ñi géeru géer ñaa ngi gëm dina sama xarit yee gis naa seen doxawaay gëm leen dina baaxee ki may tagg gën ñoom ee eh, waaw bu leen foog ne yëguma mbaa gisuma li ngeen di jànkoonteel ngir man muñ leen dina baaxe ki may tagg gën ñoo eh, waaw foog ne yéguma mbaa gisuma yéen bu leen foog ne yéguma mbaa gisuma li ngeen di jànkonteel ngir man muñ leen dina baaxi ki may tagg gën ña eh, ci ay nitu daara rek nag la ñuy dem tubarkàlla bu ñu demee tàbbal fa suñu yéene te Ahmed mii moo nekk ci bopp bi ñu ànd kook vice président kii mooy mbay Mbaye mbay Mbaye trésorier ndaak ñëwul waaye Karo Mbuub mi ci membre du bureau yi la bokk moom mooy sec secrétaire mooy secrétaire bi euh, yàlla ci kàttanam ak mbaaxam li ñu waxtaanee nag ñu ne dañuy dem Tiwaawan ca daara ja ndax ndimbal li ñu yore ci xale yu jàng alxuraan rek lañ ko bëgg a tàbbal. ñu ngi mbégte nag lii ñu taxawal nii euh, maanaam association la boo xam ne dañ ko taxawal ngir dimbali néew di doole yi doore ko ci daara yi nga xam ne mooy xale yi nga xam ne seen dënn alxuraan rek ci ne euh, bi yàlla defee nag ci mbaaxam. def ci suma xel mu mën a sos lu mel ni ànd ceeg samay mbokk nag ndax kër gi ay doomi soxnaa ngi ci eh, kër gi bari na fooy dugg tey muy tiijaan murit xaadar laayen ay doomi soxna yu baree ngi ci kon nii rek la mën a demee kër gi dara yi caaxaan taxu koo jóg sunu ñaq la dajale xanaa nit ki lu mu liggéey onze mois ci benn weer war naa mën a jël ñaqam la mu liggéey xaaj ko jox ko delloo ko suñu borom te yemal wuñu ko nag ci weeru koor gi rek dañ koy wër di ko def ma bëgg tamit artiste yu mel ni man def nii may def ak nit ñu baax ñu mel nii def lu ñun lii ñuy def ndax lu baax kenn du ko xeeb moo tax tey bi nu demee Touba dimanche parce que àdduna Sénégal noonu la tëddee boo nee xaadim rek danga naan Alaaji Malick noonu la te sama sëriñ sëriñ Saliou Mbacke yàlla ko yàlla dolli leer noonu la mësa doxee kër gi moom kër gi da doon wax benn kër la sama kër bàyyi Alaaji Malick benn kër la yaa ñun ñu ay taalibeem ñi nit dañ koy def benn kër moo tax ñu am mbégte bi ñu ñëwee nag bi ma la xoolee rek man gis naa ci yow loo xam ne maanaam dama dugg ci néeg bi rek duggaat ci biir néeg waaw fii la waaw te it doy nga ñu nag ndax ñun ñëpp commencé wax bis ni ki tey am nga xaritu cu waaw waaw jàppal ni man sopp naa la waaw sopp la te di sàkku nag nga ñaanal ndax ciu Jackson gi mom dama ko wax ci kanamu Serigne Saliou ne ko ma man la amé ciu dama bëgg nga ñaanal ma mu muñ ré buma jakkor yow dina la ko wax ndax ci lolu lay dimbali suma nday ci la yor suma papa ci ar bi mané sama mag yi may andal ci lolu lan ma soppé bëgg ma bàyyiwuñu ma nak ma def daray jaxan ndax samay mbokk rek fi né motax li ñu sos ndax limo mooy dëgg eh, mënoon nanoo ñëwee neneen mais nii mooy dëgg ndax nii la ñëwee àdduna te lii mooy lépp moo ñu sos yëf yi ne ñun sunu dooleeg sunu ñaq defuñu ko ci lenn lu ci ndongo daara yi ak kilifa yi nga ñoo fi nekkal borom bi ñu ñëwee mat nga kilifa mom moom mun na wax ni boy dem ci sunu borom dajeeg yonent bi jaratul ngay dem yegg nga euh, ban la gisee rek yegg nañ ci xalifa bi moo tax ñu ñëw fii nag pour ziar la mën a sàkku ci yow ndigal nga jox ñu ñu dem saafonteeg xale yi ndax ñun suñu yaram loolu la laaj waaw ñu dem gisanteeg xale yi jox leen dugg seen biir jox leen suñu ñaq ñun loolu moo ñu saf te loolu lañ bëgg di def naar sax nee na chaque année mais bu doon sama sago ñun li ñu bëbët saknya ñaari wër chaque ñett wër ñu ñëw waaw ndax yàlla ñuy dimbali ba ñoom xëy na ca nekk ñun la am ñoom mënuñu ko am moo tax ñun te na leen war fekk si ñoom it ñi am loo xam ne ñun amuñu ko ñu maanaam ñu weccoo waaw looloo tax ñu ñëw di kontaan nag bu baax ndax dugg nañ ci kër gi mais mbégte rek leen fi leen fi fekk. te ay kàddu dëgg. ndax bi ma la déggee. nga ni sunu boroom dalaa sàkk ne la. nanga ma aj ca kaw. à man na fonk yonent bi fonk say ñaari waajur. loo am jox leen. jëlaat jox sa bopp. bu desee tuuti nga jox sëriñ. loolu kàddu nit ku dëgg rek moo koy wax. naw naa la ci loolu barki sëriñ Saliou Mbacke. Eh, ñu am mbégte nag wax nag mu newuma ko trop ndax bu ma gisee yenn dëgg yi rek damay xaw a kii mais ñi ngi kontaan daal ñu ñu ngi am mbégte ñun ñëpp ñi ngi sa ginnaaw bis ni ki tey ah ñun ñi ngi sa ginnaaw mm-hmm. ñi ngi fasante kóllëre gu réy goo xam ne mm-hmm. bëgg nañoo ànd ak yow mm-hmm. ba bis penc incha allah waaw waaw ñi ngi am mbégte jërëjëf di leen wax bisimilah ñëw ngeen ci seen kër ndax euh, fii ngeen ñëw wax dëgg yàlla kër Seydi Hadji Malick la te it euh, Seydi Hadji ba ñu ko laajee naka la kër gi sant dafa ne kër gi santul si yàlla la sant te it ci seen biir wax dangeen ne li ngeen di def yàlla rek ngeen koy seedeloo te loolu mën nañ koo gëm ndax lu tax Cheikh Jaaja mii dañu dëkk fi la dëkk seen kër a ngi nii lii mu insisté ci lool pour jot ma pour wax ma deux jours mu di ma woo cheikh ma wax la ne la gis naa numéro bi mais man maa la jëlul woon ndax dama laa xaw a ci pet troisième jour ba ma jël sama téléphone ma woo ko bi ma ko woowee fekk sax mu ngi door a yeewu après mu ne ma fan yi yëpp maa ngi lay woo mu ne ko wax dama amul woon jot léegi mu ne di may wax lii ma ne ko incha allahu taala day amoon na euh, mébét pour génn waaye comme que da ngeen fii ñëw dina toog xaar leen laaj naa ko sax moom ci boppam yéen ñi fii ñëw yéenee ñan ak kan kan la mu ne ma déedéet association la bu tudd ngéwél gi solidarité waaw ngéwél gi salaam ngéwél gi salaam mu ne ko ah waaw comme que ngéwél gi salaam la day te baatu salaam moom jàmm la kon kuy woote jàmm yaakaar naa ba daje ku bëgg a jàmm waaw war nañoo mën a daje ñu toog ci biir néeg ma ne ko incha allahu taala bu ëllëgee maa ngi fi bi mu xëyee tey di fi ñëw di fi wàcce bagage yi mu ngi sol mayo équipe nationale ak benn panloo jiin bi ngeen ñëwee xam naa ci la daan dem soppeeku sol lii waaye di leen wax rek ne ñun kontaan nañ ci acte bi ndax jëf bu rafetee sant yàlla na jëf bu rafetee ak ndollent la waaye jëf bu rafetee tamit mënees naa yaakaaru ci jëf ja ca ñamu bawoo ak ca fa mu jëm te ñaari dëkk yooyu ngeen di wax ak yeneen dëkk yi muy tuubaa ak Tivaouane yëpp seeni boroom yàlla lañu ko sampe te it yàlla lañu fay wax yonent ba lañ fay wax ba yàlla fay leen li mu leen fay àdduna mënuloo suul tuubaa tuubaa tur tuubaa kenn mënu koo suul tur murit itamit kenn mënu koo suul àdduna itamit tiwaawan kenn mënu koo suul tiijaan kenn mënu koo suul yàlla nag moo def nag kenn ku ci nekk ci ñaar ñooñu ñu nekkoon complémentarité ci seeni ay diggante gannaaw bi mbokk gi wéyee ndax ñoom ñaar ñëpp dañ doon yëngatu ci benn mbir te mooy yàlla ñoom ñaar ñëpp itamit ñu bëggandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Tuubaa rek la ñuy wax xaadimu rasul waaye tamit alaaji Maalik rek la ñuy wax nekk boo bëggee dégg dëgg dëgg dëgg wala xam dëgg dëgg yonent bi faaw nga xool mbindu Seydil Xaaji Maalik kon nga gis ne ñoom ñaar xamoon nañ loolu ci seeni diggante. kee bu nekkee rasul. kii bind ci rasul. kon mel na ne piis la. biir bi ak biti bi. kon dañoo mottalante. ndax mbubu mën nga koo ñëw. bu la neexee nga dëpp ko génn ak moom ci biti. bu la neexee tamit nga sol ko normal. waaw kon ñoom ñaar noonu lañu ñu mel. yàlla dogal nag moom ci histoire rek. Tiwaawoon fii am na quartier bu ñuy wax quartier Cheikh Awa Balla. waaw quartier bu ñuy wax Cheikh Awa Balla moo nekk ci boo dee dem ci raay bi yoonu saylu bi ci raay bi foofu noonu ñi ko dëkkee ñëpp njabootu maam Cheikh Ahmadou Bamba lañ yàlla dogal nag yàlla boole ma ak ñoom su ma fa demee dafay mel ni sama kër laa jóge am na doomu maam Thierno bu fa nekk bu tudd sëriñ xaadim Mbàkke sëriñ xaadim moomu noonu yàlla dogal na man maa tudd ñaareelu doomam man maa ko tudd. ndax jaxasoo gu ma jaxasoo ak moom. sama taaw bi ma koy tudd sëñ xaadim moom itamit dafa ñëw. waaye xam nga taalibe murit dafa am yar gu nekk ci ñoom. mun nañ fee nekk du ñu feeñal seen bopp. waaye nit ñi leen di feeñal. sëriñ bi bi mu ñëwee ci ginnaaw la toog. bi sama ñoom bàyyi tuddee ba pare. ci lañ ñëw ne ma sëñ xaadim a ngi ci ginnaaw. ma dem jëli ko indi ko ci sama wetu baay. nuyoole leen sama baay wax ko ne ko bu ñu xamoon ne yaa ngi fi xale bi yow yaa koy tudd. mu mel ne loolu sama baay wax ndax man maa ko jëkk tudd. maa ko jëkk ngénte moom sëñ xaadim. mu mel ne loolu sama baay wax daf ko fayee ci bi sëñ xaadim amee doom. waaw ba mu amee doom xamatul Bachir la tudd benn doomu baayam la ko tuddee. ñooñu ñëpp dañ faa daje taawu baayam taawu maam Thierno. dafa bu daaru mar naan. dañu faa daje fii. ñom ñepp ñu ne yow yaay tuddu xale bi kon lolu moy la sama baye waxon lolu parenthèse rek bu mu ubbi pour won len rek ñun ñi nga xamne ñoo dëkk fi ak ñom ñun jaxaso nañ ak lom lool dégg na itamit almarhum serigne sidi muxtaar mbake mi dégg na kërëm ca jurbel daayira tijaan bu ñu ñëwé day ubbi kërëm ne len duggu len amna ay daayira tijaan yo xamne ci kërëm lañuy ndal di fa wuti faak yëpp loolu dégg naa ko beneen bi des tamit yàlla dogal toog naa ak moom moom mii waaye lu njëkk moom sëriñ Saliou Mbacke toog naa ak moom booba sëñ sooy bu siise moo nekkoon porte parole bi moo jógee fii Tiwaawan dem ziyaare ji ko jour boobu Papa njaay coppet fa la ma fekk onze heures ci guddi maa ngi fa jógee deux heures du matin ci la ma sëriñ bi door a yeewi pour rek nga xam ne ñun xamante nañ ci suñu biir te it sunu mbokk itamit ñu ngi koy doxal léegi nii nag boo leen ko taxawale ci biir association bi am na ay murit am na ay xaadar am na ay tijaan ngeen daje pour ne yàlla rek moo leen yëkkati waaye tamit bokk solidarité moo leen yëkkati loolu lu am solo la rawatina ci weeru koor yàlla nag wax na ci alxuraan ne wa amaa maa yanfaqu naasi fa yanqusu fil ardi man maa leen bind di leen wërsëgal bëgg naa kenn ku ci nekk ci yéen la ma lay wërsëgal nga cof ca la ma lay wërsëgal wërsëgal sa beneen moroomu jullit yàlla nee na fekk yaa ngi def loolu noonu man yàlla may kii dolli di la wërsëgal ngeen am xalaat boobu noonu am seen doole def ko nak tan wéru koor ne ci ngeen ko bëgg défé defe te jox nit mu lek daraja ya ca nek suma joomul wala suma bëggul wax sax mu graw mën na wax né ëpp na julli doolé da ñun féké nañ ba suñu maam abdul aziz tabah, bu aman ay gan mom ci boppam dana dugg di xol lañuy togg bu ñu toogee ba pare moom léeg-léeg ñu yëkkati bool ya indi ko ca fa mu nekk mu jël loxoom yu tedd yooyu noonu tubb di def ci ndab yi ndab bu nekk mu ne def ci rënd bi def ci rënd bi def ci rënd bi ñu defar ba mu baax mu ne demal nga jox diw yóbbul ci néegu diw yóbbul ci néegu diw loolu lu am solo la yàlla def nag boo leen ñëwee nag roy yi mag ñooñu roy itamit li yàlla bëgg ci suñuy ay diggante ndax ñun ñëpp am na ay àq yu dox ci suñuy diggante te yàlla nee na dafa bëgg ngeen rafetoo ko nit mën nga xam ban bés nga xamanteeg moom waaye ban bés la sa digganteeg moom di yem nit mënu koo xam cheikh mi boo ko kañ nga xam amet mën na la wax yow it amet nga wax cheikh fi nga ko xamee mais mu yéen ñaar ak ñun ñi ñëpp kenn mënu cee wax ku ciy jëkk dee sa morom moo tax yàlla ne bi ngeen xamantee kenn ku ci nekk wax ne man diw sama waay la yàlla nee na man maa jël sama loxo teg ko ci ñaari loxo yooyu noonu di leen ko xaaree ëllëg ci jamono boo dégloo mbër yi dañuy wax ne mbër man maa lay may xaalis ci face to face waaw bu ñu demee ba ay kurpañ di mayante xaalis est-ce que ñun waruñoo mën a dugalante aljana dugalante aljana ci naka ci defante lu baax seedeel sa moroom lu baax yàlla moo ñu gën a bind moo ñu gën a xam xam ku nekk li ne sa biir xol xam ku nekk li ngay jëf waaye weeragul kenn mm-hmm. kenn ku ca nekk mu nga am lu mu la nëbbal ah te bu ëllëgee sax du tax mu weer la ko ndax am na kum ñuy ruse am na ñu mu ñuy mm-hmm. waaw kon ñun bu ñu xamantee ci suñu biir kenn ku ci nekk ayib bu sa moroom mm-hmm. jéem caa dëgg nga toog muñ parce que yow it yaa ngi ak ayib te bugguloo kenn xam ko kon bul génne bosu moroom waaw su ko defee nag kuréel gi ngeen taxawal nag yàlla sopp na ko de yàlla bëgg na ko parce que ay xol yu daje lañ kenn ku ca nekk kii am téeméer ki am ñaar fukki ki am fukki dërëm ngeen indi ko déplacé wu ñëw yëkkati ko di ko joxe boole ko constitution constitution bu wér ndax kii mën nañoo wax ne mooy constitution bépp jullit kii bépp jullit ci alxuraan nga war a référé woo ci alxuraan nga war a atte kii mooy constitution bi wér kenn ku ci nekk boo ko jàngee xam la ca ne sa dund di nga ko mën a normaliser di nga xam ne kat kii wax lii waxandoowul ak kenn te it ba muy wax itamit kenn déewu ko moom moo xamal boppam waxal boppam te it bu lay àtte itamit ëllëg ci lii la lay àtte ndax danaa laaj lan moo nekkoon sa téere dana laaj kan mooy sa borom dina la laaj itamit kan moo nekkoon sa yonent dina la laaj lan moo nekkoon sa diine kon bu yàlla defee ngeen boole ko alquran li ñuy wax naan def ngeen fi ngeen war a defee waaw def ngeen fi nga war a defee yow nag yàlla dogal nag wax dëgg yàlla ñu dela seetaan ci télévision bi di di kontaan ndax euh, li ngay def wax dëgg yàlla mel na ni mën nga ko te it maîtriser nga ko ma li ma gën a jaaxal di nga sol trois pièces grand boobu ak grand boobu nu mu rëyee nga fecc te doo ca pakkastalu yàlla boo ca pakkastalu doo ca daanu yàlla boo ca daanu te it li gën a rafet itamit di gën a neex itamit grand boobu yu seer ngay sol di ko feccee fecc ma nag jaxasoowul lu ca nekk maanaam xam nga fi nga koy teg xam nga ni ngay taxawe xam nga fi ngay daanele kon bàyyi nañ la xel bu baax a baax a baax a baax moo tax bi may lay dooru nuyu léegi xàmmeewu ma la waaye bi nga ñëwaatee fii ba toog laa ne man de kanam gi am na fu ma xamee man na ndax kii du cuub <laughs> waaw kon su ko defee waaw fekk moom la ma wax rek ne maanaam mbir boo ko dee def sax dafa war a mokk bu mokkee day daal di rafet ca ña koy seetaan. waaye bu mokkulee. dañ la ciy jéppi nga ba ba bari ñu la ca noonoo waaye yal na yàlla taxaw la. lii ngeen def nag rëy na lool ndax jóge Touba beneen dimaas bi ci des ngeen ne Tiwaawan ngeen jëm. rëy na waaye nag yéene bi moo gën a rëy. ndax rëy na ca yàlla waaye tamit fi ngeen bëgg yóbbu mbir mi. ñu ngi ñaan yalla yalla na dimbali leen ba mu ag fa ak te na dema dema dem ba lamb mbollem ko xamni ne rek amna yene mu fekk ci fekk ci leen ci biir ni euh ci ni mu deg nak mu mel ne yaay artiste bi jëk def li waaw li nak lu am solo la yalla na ci ñepp top ndo waye tamit kula ci nar top ndo yi tamit yalla na rek mu nekkat top ndo way amet tema ñew rek daal di fekk ci amet waaw ñëw bokk ñëw dugg ci biir association bi topp ci ginnaawam te it bu fekkee ne cosaan li mooy yàlla rek ngeen koy seedeloo incha allahu taala dina jëm kanam te danañu toogaat ñu gisantewaat ngeen nekkat xam nga la ñu doon wax te doon ko mëbét waaw yàlla def na tey mbooloo mi yokku na mën-mën bi yokku na te dana am ñeneen ñoo xam ne ñii dana duñu bokk waaye seen loxo day nekk ci biir kon yàlla na ko yàlla def ñu ngi kontaan baax yàlla na yàlla fay leen li ngeen fii indi ci suukar yéene ko daara ji suukar dafa neex dafa weex yal na ko yàlla weexalee karaw yi noonu yal na ko yàlla neexalee itamit dund gi waaye yal na ko yàlla safalee itamit seen dund bu dee ceeb bi itamit nga xam ne ñëpp dañ koy jëfandikoo ñu ngi ñaan yàlla itamit benn pépp ceeb bu nekk itamit yàlla na ko yàlla weexalee noonu seeni karaw yàlla euh, safalee ko noonu itamit seen euh, dund àdduna ak bu alaaxira lépp di doon mbégte ndox ma ngeen indi tamit nga xam ne looy def faaw mu am ndox dana setal dana dana faj aajo nit dana dana dana sellal doomu aadama yal na ko yàlla fajalee noonu seen ay mbir yal na yàlla sellalee noonu seen ay mbir yal na yàlla itamit setalee noonu itamit seen mbir ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa bu ñu jógee fii léegi dañuy jàddi jéem a dugg ndànk ci daara ji waaw buñ fa duggee su ko defee bu fekkee ne waaw buñ ñu fa duggee sax mun nañu yebal ay xale waaw ñu ñëw jël si bagage yi waaw ñu indi ko parce que am na loo xam ne li boo ko dee def te jublu ca lu baax waaw danga koy seedeloo àdduna ba àdduna yëpp xam ne kat kii kat walla ñii kat lii mooy seen yéene te tamit ñu ngi koy def te it siiwal nañ ko lu baax dañ ko war a siiwal waaw lu baax dañ ko war a siiwal lu bon kay moom lañu ñu war a nëbb waaye lu baax dañ ko war a siiwal ngir ña nga xam ne bëggoon nañ ko waaye mënuñu ko walla sax ñu nga ca lu bon waaye nañu jéem a def lu baax comme diw mii lii nag lu am solo la bu leen ko xeeb euh, yëfu yàlla nag buy tàmbali buy tàmbali dafay sew dafay sew bu sewee jàppal na yàllaa nga ca waaye bu fekkee ne day fay dañuy tàmbali benn mbir mu yaatu yàlla nekku ca waaw buy tàmbali gis nga nii mu toll nii ni mu tol ni na tol ni te barkeel Mustafa ñi soppee gëm sama duma sujam ni ñi gir géer lên đi na ba, gem leen dina baaxee ki may tagga gën ñoom lay lay la la lay lay la la sama gisin géer moom du maasu jaam ñi géeru géer ñoo ngi lên đi na ba. am na loo xam ne lii bu ko nit defee. Hmm. ñaanal na boppam. waaye am na loo xam ne bu ko nit defee hmm. sànq na boppam. lii nag teraanga la. Hmm. lu baax la itamit. ngeen jël seen kattan. jël seen doole. xëy na mënu leen def. kenn ku ci nekk. ngeen jox ko lu mu lekk. waaye dajaloo ngeen. la ngeen am. ngeen andi ko te fan ngeen ko jëmee. ci daara ngeen ko jëmee. day fi mu nekk nii kenn ku ci nekk. xale bu ne bu ci nekk. benn mbuusu mbiskit buñ la ko joxee. jox la benn mbuusu ndox. omo bee. ñu jël ko def ko ay mbuus. ku ca tilimle. ñu jëkkati benn mbuus bu juróom dërëm wala bu fukki dërëm. jox la ko. nga dem fóot ci say yére. yiw ba ca nekk ak yool ba ca nekk te ñaanal leen pour yéen lii nii ëllëg mu yokku incha allahu taala yàlla dana ko def yàlla dana ko def yàlla ngeen ko seedeloo nag mënoon ngeen nag boo leen doon ñëw nag maanaam ànd koog mbooloo ànd koog bruit waaye da ngeen ñëw dugg ko dans li tubaab di wax dans l'anonymat ak tamit nu mu gën a nu mu gën a dalee rek ngeen def ko incha allah te yàlla nag lii la gën a bëgg nag jëf ju ne yàlla dafa bëgg boo ko dee jëf nga seedeloo ko moom yàlla nag moom ci boppam moom mooy dal yàlla moom ci boppam moom mooy tekk kon su ko defee yàlla na yàlla fay leen waaw euh, média bi vision lan waaw El Vision El Vision ñoom tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom ñoo leen di accompagner ñu ngi di ñaanal yàlla ñoom tamit euh, lii nii yàlla na continuer yàlla na sax yàlla na dema dema dema dema dem ba El mu dem ba nekk télévision yàlla mën na ko waaye tamit mu jaarale ko nag ci ngéwél gi salaam waaw yaa mun jaarale ko ci ngéwél gi salaam yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ci barke yonent bi salaam salaam amet daal waaw amet daal ñun kontaan nañ bu baax yàlla na yàlla fay la waaw jëlal numéro bi ci Cheikh waaw ñu taalee télé bi rek ba gis leen yéen rek dañuy taxaw tuuti xool xaw a fàtte tuuti suñu ay euh, ay kii waaw yow nag bokk nga nag ci ñi nga xam ne wax dëgg yàlla waaw dinañu la bàyyi nañ la xel daal yal na yàlla taxaw rek waaw yal na yàlla dolli sutura. jërëjëf jërëjëf sëñ Malick. yéen ñi soppee gëm leen dina baaxee ki may tagg gën ñëpp ki may tagg raw sama géer seen géer moom duma su jaam ñi géeru géer ñange gëm leen dina baaxe ki may tagga gën ñaam lay lay la laa gëm leen dina baaxe lay lay la laa sama géer semge moom du maasu jaar ñi géeru géer ñange gëm leen dina baax assalamualaikum uh, suñu mbokk internet yi assalamualaikum yeen yi nga xamne dañuy safo Elvision media man awaso bo len ma gisee sama muuraay bu jek bi ngeen xamne nak Maliksi. dama ñew ci Deku bu sel bi ñuy wax ci dekk El Hadji malik si dekk Serigne Babacar dekk mam Abdou Aziz si Dabakh ma ànd ak kan gi salam uh, association ngeewal bi salam bi nga xamne president mohamed Mouhamed Thiou moom ko uh, ñu gën ko xam ci Ahmed Jackson Dom nday wali Balago Sek. Ah, comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek dem nañ seeti ji ki nga xamante moom mooy Serigne Mansour Sy ibnu Serigne Mbaye Sy Mansour mi nga ah, leen gisee nga xam ne ñoom ci social rek la ñuy dem parce que dimanche passé la ñu demoon moom mooy Touba ziare Serigne Cheikh Jëmb Fall ñu ne seen deuxième sortie dañ koy defee fii Tiwaawoon dëkku sell ku ne Tiwaawoon rek xam ne da ngay wax ne Serigne Mansour Sy borom daara ji yàlla na yàlla yokk ay leeram te tas ñu ci barkeem ah, waa Ngéwal gi salaam nekk na ci ñoom social rek la ñuy dox te li ñuy dox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 dem Mbàkke dem Ngay tay ak njurul ci sama dëkk sëriñ bu tedd bobu sëriñ Salim tay ñi ngi fi euh ñëwoon fi tamit ci comme d'habitude rek ci nongo daara yi ñëw nak dajé doomu sëñ Mbay si Mansour ñu koy wax Mansour si di doomu khalifa bi nga xamne mo tok tay ci jal don ko jébbal sunuy doo yi nga xam ne moom la ñuy defal nongo daara yi ci wàllu social yi nga xam ne gi salaam loolu rek lay dox loolu lay tax a jóg loolu moo leen tax a eh, ñi ngi am mbégte nag bu baax nag ndax ba nu ñëwee Tiwaawan lanu fekk lanu fekk Touba fekk ko Mbàkke rek lañ fi fekk muy diine te ñun ay xale lan ay julit lan ay artiste lan lu nu mënti am ci diine moom la ñuy moom la ñuy njëkkee ci moom mi ñuy mujjee moo tax nag tey social bii ñu def regret wul ko benn yoon ñëw nag ci dëkk maam alaaji Malick bi nga xam ne da ko sos ci alxuraan ndax moom lépp lu mu am rek ci alxuraan lu ko am mooy ñaari kër yi Touba Tivaouane benn kër la moo tax association Gueweul gi Salaam ñoom comme que kër gi dafa bokk doomi soxna yëpp bokk ci moo tax dem nañ tuubaa ñëw nañ Tiwaawan danañ dem Kaolack ci maam Baye buñ fa jugee dinañ dem Laayeen euh, kër waa Omar Fouti Taal dinañ fa dem ndax ñun fépp fu daara ne dinaa ànd ak sama équipe ñu dem ndax ñun ci loolu rek dox waaw waaw euh, euh, président Méthiou bëgg naa tamit nga wax ma tey ban yëg-yëg nga am bi nga ñëwee nga xamante ne ki nga xam ne moom mooy doomu xalifa bi di Serigne Mansour euh, reconnaissance bi mu am ci yow di la bàyyi xel te tamit ku nga xam ne moom doomu soxna la en même temps nekk sëtu wàllu kon kooku bu defee benn remarque ci yow tey ban yëg-yëg nga am parce que moom mi ngi lay bàyyi xel bu baax a baax ba di la ñaax ne la sa mbokk artistes yi war nañ di roy ci yow di def ne social bii ngay def ñu def loolu. waaw maam mbégte nag maam kontaan ndax nag. Euh, loolu laay ñaan yàlla mais loolu dama ciy sant yàlla sant ci sama mbokk yi ma àndal muy ngéwal gi salaam mënoon naa leen ci woo ndax benn lam du yëngatu ñu ne ma amet ñun amuñu temps mais danoo ànd ak man ci yiw googu waaw di liggéey nag doon artis terewul nga doon jullit ñu taaleel télé bi rek ah. ba gis leen yéen rek dañuy taxaw tuuti xool xaw a fàtte tuuti sunu ay euh, ay kii waaw yow nag bokk nga def ci ñi nga xam ne wax dëgg yàlla waaw dinañu la bàyyi nañ la xel daal yàlla na yàlla taxaw rek waaw yàlla na yàlla dolli sutura doon artiste terewul ngay def lu baax di ko wax waaye yàlla dogal na ba moom ci lu baax loolu ñuy def ci suñu wàllu aar mi ñuy xamal ni ñun saltewuñ ko ci ñu ci daraay jubadi ñu ci daraay ñak teggine ndax ci biir waxam yaa ko degg mu ne trois pièces yi ngay sol jot na seuk te ngi def li nga ci def te Yaunak ci faxastalu te yalla bo ci faxastalu yow nak yalla dogal nak wax deug yalla ñu dela ci télévision bi di di contane ndax euh, li ngay def wax deug yalla mel na ni mën nga ko te maîtriser nga ko li ma gën a jaaxal di nga sol trois pièces grand boobu ak grand boobu nu mu rëyee nga fecc te doo ca pakkastalu yàlla boo ca pakkastalu doo ca daanu yàlla boo ca daanu te li gën a rafet yi tamit li gën a neex yi tamit grand boobu yu seer ngay sol di ko feccee kon moom mënoon nanoo am beneen façade bu ñu doon wone du ñu bàyyi xel moo tax may ñaax sama mbokk artistes yi na yëf sell na yëf yi yiw ndax ku ne ñuy seetaan wàllu yi dañ ñuy seetaan jinne yi dañ ñuy seetaan ñëpp ñuy seetaan tey ki bokk ci ngéwél gi salaam doon ko suufe ngéwél gi salaam yëkkati ko jiital ko moom la doomu xalifa bi wax ni dama lay suivre di la seetaan ngir li ngay liggéey ci yiw gi nga koy def loolu sant yàlla la ma ciy sant nag njóor gi salaam ndax nag bu ma ànd woon ak waa njóor gi salaam xëy xalifa bi du wax lii ci biir loolu nag ci lañ ñëw ziar ko joxe suñuy doo ci daara yi ndax ñun ci loolu rek leen ñuy dox ci daara yi njóor gi salaam daal li ko tax a jóg du puukare li ko tax a jóg mooy jël seen doole di ko dimbalee nitu doole yi muy social loolu la tax a jóg bu ñu jógee ci lii bu koor gi passé noddu gaa ngi noonu di ko seede dinañ dem ci prison yi comme que dañuy noddu nag bàyyi ma bàyyi ba noddu gi weesu ma yeggali comme que nodd moom boo ko déggee rek da bàyyi lépp looy def boo doon dawal sax da war a taxaw moo tax euh, ñu taxaw mais Ngéwél gi Salaam daal lii ñu def nii loolu moo leen tax a jóg ñu ciy sant yàlla nag bu baax nag di gërëm bu baax waa Ngéwél gi Salaam gépp ñu ngi gërëm di leen sant yéen nag am nañ waxtaan bu rëy naa bu ñibbee waxtaan nag ndax ngéwél gi salaam tàmbali na benn liggéey boo xam ne ah ñu leen soxla bari na moo tax faw nga ñëw foofu ñu waxtaan incha allah te dinañ waxtaan. yéen a ko déggandoo kàddu yi am na solo kooku nag moom moo nekkoon Mouhamed Samb ñu gën ko xam ci Mouhamed Thiou euh, Jackson doomu ndeyu Wally Balago Seck damay daal di dékkaat sama micro keneen rek moom mu am indi ci tuuti leeral. macha allah comme ni ma leen ko waxee woon rek nee naa du ma bàyyi benn yoon parce que tamit euh, euh, sànq léegi laa dékk sama micro ki nga xamante ne moom mooy président Ahmed Thiou damay dem ci vice président bi rek muy tontonaar Guèye borom Mbàkke Bawol tontonaar nuyu naa. ngi lay fay yéen waa El Vision Média yëpp. di leen waa ñu gis la tey ji yaa ngi jóge ba Touba ñëw fekk si eh, président Ameth Diouf fii nga xamante ne moom mooy Tiwaawoon dëkk Serigne Babacar Sy eh, te gis nañ ne yow ci association Ngéwél gi Salaam yow yaay vice président bi eh, dimanche passé rek la ñu ñëwoon fële nga xamante ne moom mooy Touba mm. ñu dem ziyaare xalifa des Baye Fall muy Serigne Cheikh Jimbu Fall ak ki nga xamante ne moom mooy doomu Alaaji Baara Serigne Galas Kaltoom ngeen jël ay teranga yu baax a baax jox ko jaamu yàlla yi te parce que ku ne xam na ne weeru koor bu weer jotee nga jël benn dog jot nga jël benn doomu tàndarma rek jox ko doomu aadama xamoo yu yàlla bi nga xam ne moom la la ci suñu borom di di di fay euh, ma di lay laaj li nga xamante ne amoon na ca Touba ak lii ngeen fekk si fii si Tiwaawoon euh, loo ci ressenti tontonaar xanaa di sant yàlla di julli ci yonent bi mhm. di sant suñu ñaari waajur euh, di sant président Ahmed mi nga xamante ni nii moom moo ñu boole ci association Ngéwél gi Salaam ñu mhm. jaar ci loxol Dàmbaay dama naan ànd bi ci gën a neex mooy suñu borom boole la ak ñoo xam ne da ngaa bokk ñoom bëgg-bëgg mbaa nga bokk ñoom pas-pas. yàlla dogal euh, amet ay yitteem bi ma ko déggee euh, ci ay kàddu mu doonoon ay kàddu yu mu daan wax naan def te yàlla tax da ko itteel. kontaan rek kontaan rek ndax euh, li nga xamante ne nii moom lañ woote dañ ko bàyyeegul benn yoon muy social jàppalante. dimbalante ku tane sa moroom dimbali ko ndax loolu mooy jëfi jullit euh, yàlla defoon ñu génnoon suñ première sortie euh, demoon Touba deuxième sortie bi ñu ne nañ ko def tiwaawan ñëw ci daara yi saafante xale yi jël sunu ñaq jox leen ko euh, bi ñëwee fi daal kontaan rek kontaante bu baax a baax a baax ndax sama doom a ngi ci sa doom a ngi ci keneen doomi keneen ak keneen a ngi ci. kon euh, sant yàlla rek bi nga xamante ne nii. am na ñu liggéey seen xaalis def ko ci leneen. ñu liggéey li nu yàlla may lu mu néew néew ñu boole ko. ni nañ ci bégali xale yi nga xamante ni nii yani jàng alxuraan. tamit di gërëm ki nga xam ni moo ko sos euh, ki nga xam ni moom moo di Ameth Thiou Jackson ñu koy jaajëfal di ko ñaanal tamit yàlla yokk man-manam ndax euh, xam naa ni Géwël gu Salaam du hasard ndax kilifa yi ci dem yëpp biñ fi demee sëñ Cheikh Jëmb Fall loolu la ñu wax ñu dem si ngay loolu la ñu wax ñu ñëwaat fii nga xam ne moom moo di Tiwaawan tamit la même chose ki nga xam ne moo di doomu xalif bi loolu la ñu wax Euh, ngéwél gi salaam daal man maa ngi ñaax ñi fi nekk képp koo xam ne yaa ngi si biir ngéwél gi salaam na nga góorgóorlu xam ni ngéwél gi salaam caaxaan taxu koo jóg ndax social képp ku si dox waxuma la ñi ngi koy defal dong mais suñu borom moo lay ñëpp gërëm ñaanal nag yéen waa El ndax euh, depuis ban commencé lii ñuy dox ba léegi fu ñu geesoo gis leen te Euh, loolu yëg-yëg la safoo la faale la te ma gis ci seen euh, njaatige muy élage ma am lu ma seet si seetlu ci moom ndax daa am loo xam ne dafa baax ci kafe waaye dafa bon ci nit muy foor ak tàng te loolu lépp dara dalu ko ci mu doon ku baax ku disponible kon ñu leen di ñaanal seen euh, télévision bi dem ba wër monde bi yàlla dafa leen ci jàmm dafa leen ci tawféex ba teraanga boo leen ci wut ngeen am ko ñooy kontaanaat bu baax di ñaan sunu boroom nag mu may ñu ñu fekk ko ay déwén te bu déwénee mu gën a kii incha allah kontaan na noonu vraiment merci kii may tagga gën ñëpp kii may tagga raw gëm leen dina baax sama géer seen géer moom duma su jaam ñi géeru géer ñaange gëm leen dina baaxe ki may tagga gën ñaam lay lay la laa gëm leen dina baaxe lay lay la laa sama géer seen géej moom du ma su jaar